ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaan bu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naa yi xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba suñu boobu may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko lu kaw ñu kon ci ndigalam ak kàddoom lañ yëkkate li ñu bëgg a wax xam naa sax kàddu yi. dana gàtt lool ndax li ma ci waroon wax lépp waxoon naa ko sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif mu jot li ko nu kawe na ma ko bëggee kon kaddu yi kaddu yi yu gàtt la yu jëm ci jëwriñam jii di sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibra Fall ak mboojoon njabootu Cheikh Ibra gépp bàyyiwuñ kenn sëriñ bi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen pasteef ak seen taxawaay ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dafa wax ne bu ngeen fàttalikoo daaw bi nga xam ne waa ci kanam jëndoon na ay camion andi ko ci dëkk bi daf leen waxoon ne jëf ju rëy nii màgge nii amul kenn ku ma ko war a teg ci loxoom ku ko yow ku du njabootu Cheikh Ibrahima kon moom xam na njabootu Cheikh Ibrahima li mu doon ci yoon nit ki nga xam ne mboolem kilifaam yooyu fi jóg yëpp di jabaru Serigne Touba ndax maa ngi koy fàttali bu yàggut Serigne Saliou Mbacké nangoo na ci làmmiñam ngir foggum ko foggum moo jabaru Serigne Touba yëpp nag boo ci xasee tudd kenn rek tuddaale ñu ci des waaye ñoom ñëpp benn att bi ak benn taxawaay bi lañ amoon ci seex bi koo ci wéetal boo ko tuddee am na coow ak cofeel ak ko fonkeel goo xam ne kenn xamul fu mu yem Serigne Saliou Mbacké nag ci kàddu yu gàtt bu wax ne Cheikh Ibra de ñëpp ko ameelu cant ak ngërëm ndax buñ ci Serigne moo tax bu toon loolu lépp nag képp ku bokk ci Serigne Touba ku ne Cheikh Ibra ni bëgg Serigne Touba ku bokk Serigne ku ne war nga ko ambalu cofeel ndax dafa bëgg Serigne bi ba xolam dara xajaatu ji lu may Serigne bi bëggul bëggul adduna ragalul sawara bëggul àjjana sëñ Tuubaa rek la bëgg moo tax sëñ Tuubaa it fayee ko lii mu ko fayee ci biir xol yi kon sëriñ Cheikh sëriñ bi ne mi ngi lay sant di sant mboolem sarak yu topp sa ginnaaw ak mboolem cheikh yi nga xam ne maam cheikh la mboolem cheikh ak mboolem taalib yi di gërëm itam nag mboolem yoon wuur yëpp ndax ñu tegee ak liggéey ci loxolu sëriñ Cheikh jëmm képp ku yaakaar sëriñ Tuubaa tàbbi nga ci biir kon sëriñ bi nee na mi ngi digg taalibe sëriñ Tuubaa yëpp lépp ci waaye mën a jëf nga jëf ko mhm. ngir xam ne jëpp jëf yu ñuy jëfal sëriñ Tuubaa te jaar ko ci Seex Ibra yoon yoon bu ko gën mhm. kon mi sant bu baax di gërëm te du leen sonn ndax yéen xam na li ngeen def ni ko sëriñ Fall waxee waaye juróom ba sëriñ Mourou def bu ndigal bàyyi ko ci sëriñ ñëw ci moom ka ko andi di ak àddee jox la maa ngi sant te loolu ca maamam jël ko jëloon jabaru seex ba gépp kon ñoom fuñ toog xam na ne ndigal leen fa bàyyi ku toog ci barab di fa xaar mbir nag bu loola accès te moo la bàyyi ci àdduna loolu doo ko fooy moo tax keroog ba ma Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yónnee ma ànd ak Serigne Cheikh mii ñëw ci sëriñ bi yëkkati ndigal di jox ko booba rek lañ ci nopp ndax wóor na ko ne du leen ko fàttali leen ko sonn ndax xam na ne wóor na ko ne ni mu leen itteele dara mënu caa dolli ko kon mu ngi leen mi ngi koy ñaaral moom mii nga xam ne moom la ko ci loxoom mm-hmm. ni ci mu ko defoon ci liggéey yoo ko jëkk rek suñu borom may ko kattan ak mu ànd ko rakkam yëpp nag ba liggéey bi sotti ba ñu jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ba yeneen liggéey topp ci ndax yéen kat da ngeen amul benn yitte loolu liggéey Sëriñ Tuubaa mm-hmm. seen dund gépp ci Sëriñ Tuubaa ngeen ko jeexal mm-hmm. seen seen guddi ak seen bëccëg Cheikh mu taxa mas naa dégg daaw boo suñu asan mi ngi toog mu seere ko mu ne Baye Fall moom moom dañoo kéemaan ndax ñoom dañoo bëggul dara far ndax koo xam ne kër gu rafet sax bëggoo ko loolu taw féex jë ju leen euh, seen maam di dégg gu rafet dangay kuy yëkkati ay téeméeri million di ko joxe te boo seet fekk ci néegu ñax loolu jabaru seex ba képp loo ko suñu borom jëli ci yi jabar kon nag yéen ku jataay bii na ku fi ñëw te amul yëg-yëg wala sa posture bi Serigne Touba dugg da am lu bari loolu ndax ku fi teew man sama jëm bopp de yëg naa loo xam ne gis naa ko ci takk ak posture bi ma bi seen ak yitte ju kanam kon nag jàpp naa ne sax lu jotaayu wax jotaayu jëf rek la kon nag ne ñëpp fetluwaat seen yitte fetluwaat seen laxasaay ndax nii ko suñ Cheikh waxee léegi rek suñ Fallou waxee ko ni ku fi ñëw dalay fàttali li nga xam ne daa nga ko dégg muy ca carrière ndokk ba ci jamono Cheikh Mouhamadou Fall waaye ku ku fàttali ko daan la fàttali jamonoy euh, Cheikh Saliou Mbacké ci liggéeyam xel ko loolu la ma jataay bi joxaat kon nag mboolem jëftee ñëpp yàlla na suñu borom kàttan ba ku ci ne lañ ci bëgg jëf nga day ci tawféex ba jëf ci ndax mbirum Serigne Touba jëf rek moo ci maye wax mayewu ci ndax sëriñ bi damay wax ne istara minal mu'minina am wa amwaalahum bi anna lahumul janna dañoo jaay suñu jëmm jaay suñu alal jaay ko ngërëmu Sëriñ Tuubaa te mooy ngërëmu yàlla suñu borom te wa ridwaanu lillaahi akbar saalikoo fasul azim sëriñ bi nag bu fekkonte ne kenn mën naa jariñu ci moom ci lu dul ak taalibe kon njabootu boppam duñ jébbalu ci moom waaye xam ngeen xam ne lim am mayewu ko sërixu ko dafa jaay moo tax Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadil sëñ Mor Roqe Bousso ak sëriñ Massamba Mbakke mu wax leen ne leen li fi nekk kenn mënu ca jot te jaayoo sëñ Njuréel jënd ko teel kon nag kenn mënu ca amut loolu nag ci wane yoonu mooy Cheikh maam Cheikh Ibrahima kon nag jëf ji nga xam ne sëriñ Touba sant na ko Cheikh la Cheikh Abdoul Ahad Mbakke waxoon na dafa waxoon ne kër sëriñ Touba ak kër Cheikh Ibrahima fu ci ne daa am mbañ nee na kër sëriñ Touba mbañam mooy ñàkk joxe ndigal. kër seex Ibrahima mbañam mooy ñàkk a topp ndigal lool nag kon jataay bi mel naa ñaar yëpp dàqu na ci ndax Serigne Touba joxe na ndigal kër Cheikh Ibrahima jëfe na kon nag la ci des mooy yaakaar ndimbalu yàlla ak yaakaar tawféex ak yaakaar ngërëmu Serigne Touba di jéggulu Serigne Cheikh jëmm ndax jataay bi yàgg na yàgg na coom te xamuñu woon ne day ñëw ndax ku ne xam ne am na ngànt looloo waral yeex agsi bi ak yow di xaw a xat waaye ñu ngi jéggulu ci jataay bi ñu ko fi yàgg di gërëm nag mboolem ñi fi teew ñëpp jërul del si ndax sëñ Moustapha suñ doom ji lim na ko waaye ñuy siyaare rek sëñ Abdoulahi Mbacke yàlla boobu mi nga xam ne képp ku ñëw ba ca barab bi xam ne moo fi teewal borom sàmm faaw nga jot ko nuyu cant ak ngërëm di nuyu ñi nga xam ne ñooy yeen kër yi fi yëpp di njabootu sëñ Bousso bi ak mboolem ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi fi teewal nguur gi te buñ fi tuddee préfet tudd ci Abdou Mbacke Ndaw tudd ci Gallo Ba